président Macky Sall ñi koy jéem a te ay nit rek ñoo koy ku gëm Ablaye Wade la ku ko liggéeyal la waaye am na ñu ko yàqal de ci diggante ak Ablaye Wade bëgg naa nga ñaan ci nga wax ci nga jàppale ko ndax njëriñ la pour Sénégal sëñ bi jóg ni oo man day wax di ñëw ci man bari na lool te lu bari duma ko ci xam waaye lii nga ma wax de dugg na sama bopp daal li ma Macky Sall de Ablaye Wade dama waxoon naa ko ñaanal te ñaanal naa waaye nag xaw ma woon ne mbir mi de fii la toll waaye boo génnee nee na ñëw bu soobee yàlla bu ñëwee dinaa ko ñaanal Moussa mais xam na ne keroog bi mu ñëwee Ablaye Ngom la àndal got booba jamono ji melul nii de ndax booba Macky Sall neexut a ñeme ndax boo ko jegee rek yàqule ci Ablaye Wade bi ñu accès fat na ko fa lay yenn Moussa Mbële moo ko de dalal ñuy bëree di bëree di bëree di bëree ba mu yàgg son yi bu sisee dégg góor a jéy góor a jéy moo ñëw ni sëriñ bi nee na na Macky ñëw mais bu kenn ànd ak moom boo ko duggee ca biir sëñ Moustapha Saliou rek fa ne ndax booba kër gi génne nañu ñëpp sëñ Moustapha rek fay ne ndax ci diggante boobu la keroog la ko ñaanal boole ko sëñ Moustapha Saliou mu génn gunge ko ñaanal ko mu taal bal loolu moom la sëriñ bi di junj. ba ma koy wax sëriñ bi la ma jublu mooy bopp bu bëgg a yàqu des ca war a taxaw te sëriñ Saliou xam naa ne lu dugg noppam saafaraw kon mbirum Macky Sall foofu la saafarawoo bal bi ci la tàkkee ba loolu continuer bi allah ji baara ñëwee ginnaaw sëriñ Saliou mu dem jokk ci moom mbiram continuer poroxaan mu joxanteeg moom rendez-vous pour dugg ci réew mi mu ñaanal ko ñaan boogee ñu génnee ñëpp di ko gis wax ko ca wax ñu lay jotee di ko fii ci kër sëñ Touba yaakaar du ñu tase.